الحمد والشكر لمن كل به سارح له ردن دون سقط عند السرسارح لا سنائي وردوان بلا صفة مصاد لي من بني ديمان انصارح لله كل لدى أبار مكرمة من أرسال نوفي أجم من سارح إن الذين إلى صرصار خد خسدوح شارت فارغة فارغة دار الأوسارة يلاح بالمصطفى سندي بيلاح وبخليلك إبراهيم يلاح وبكلمك موسى صالح خدير وبشحيب وإسماعيل يلاح بسليمان نوح يونس اليسعي وزكريا يحيى هود الله هران يوسف إلياس وآدم داود ذي الكفل عيسى لوط الله ويوسف بشكل خير ما من أنبياء ورسل لك الله وبالملائكة تران سما سبا دحم الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي أدى الأمانة خير الأداء وبلغ الرسالة خير أحسن التبليغ وعلى آله وصحبه وقدمه وسلم تسليما فضيلة الشيخ مامور مباك ابن سرين محمد المرتدى والوفد المرافق لك نوجه إليك الشكر والاستسلام من الخليفة سرين محمد مرم جاي ابن سرين مرسين جاي وجميع عائلة مامور جاي تاغار الأحفاء والتلاميذ والإخوان من جهة الدين والنسب نطلب منك أن توصل ذلك كلها إلى خليفة العام لطائفة المريدية الشيخ محمد المنتقى مبكي حفظه الله ورعاه فضيلة الشيخ لقد وليتم ووفيتم فجزاكم الله عن العباد خيرا نحن كما قال الشاعر أقدم الشيخ على حق والدي وأوسك حقا على كل مسلم فهذا مربي الروح والروح جوهر وهذا مربي الجسم والجسم الشدف وحديثنا اليوم يدور حول النمسوج قصير عن موضوع الشيخ محمد المرتدى المثل الأعلى في تحمل المسؤولية إن سمو الإنسان حين أراد أن يحقق وجود المادي المحسوس تجسد في نماذج نادرة وباهرة من البشر إن أحد حسن النماشي العليا الشيخ محمد مرتضى مبكى ابن خادم الرسول دع عينيك عن آية واقعة من وقائع حياتي تجد فيها سمائله كلها وعدله وورعه شهده إيمانه سدته لينته عصمته وتواضعه وهو يتحمل من المسؤول القدر الذي يقصه ويبرئ سمته بل يحمل منها القدر الذي يتطلب موقف جميعه إنه يرى نفسه تجاه الأحداث والمواقف وأنه المسؤول الأوحد ينتقد من قلبه شجاع إحساسه بمسؤولية عن الدين كله وعن جماعة المسلمة كلها بل وبمسؤولية عن المستقبل الدين وأهله عبر القرون الآتية والدهور المقبلة ومن ثم اتجه الإنساء مدارس التعليم لأبناء المسلمين وتربيتهم تربية إسلامية كما أسس الشركات كثيرة لمساعدة المسلمين وتحريصهم على الاعتماد بأنفسهم لأن العلم والعمل الجوهراني وقال الشوقي بالعلم والمال تمنى الناس ملكهم ولا يمن ملكا على جهل وإقلال وله موقف هام في الاقتداء النبي الكريم ووالد العصيم في تعمل المسقة العادة لنصرة دعوة الإسلام في البلدان رقم كبر سنه لم يهتم براحة وكان قال و... لم يهتم براحة قال الله تعالى وكان يتردد قوله تعالى أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يمسسهم مثل الذين قالوا من بعدهم مستهم البأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب لذلك كان يباشر طريقة طريقته طريقة النصر دعوة الإسلام التي لا يتقيرها نكبات السمان فهذا هو الشيخ محمد المرتدى السلام عليكم ورحمة الله سريم بنيونج لي نيو دي لا سيارة دي لا دلال دي كونتان دي بيك لول بيك مو خامني مونو نوكو فينال كاد جي ما ييكاتي نك ماي كو تودو سي كاد غو خامتاني ماي كاد سريم محمد مرام جاي ميغا خامتاني موي جيتا نجابوتو سريم مور جاي تاغار ca mbooleem ay rakkam yépp nekk fii ci wetam tey yoon wii doon ay yoon yoo xamante ni yu bare bari ñëw nga ñëw nga ko fi yulli ci mbooleem say coono ñu ngi lay maslawu coono yi di la dal jàmm bu loolu jàllee sëriñ Mouhamadou Mbaram mii mi ngi lay seedeel ni sëriñ Mourtala mii nga xamante ni mooy rakkam ku mu gërëm la ku ko déggal la ku ko nungul la ca ku ko bàyyi xel la waaye loolu nag ñu ngi ko royee ci seen rakk jii nga xamante ni mooy sëriñ moor Belel mii ak mboolem njaboot sëñ Mor Seye Ndiaye yi amu ci kenn koo xamante ni dina leen jógal guddi ca jugoo wala kenn koo nga xamante ne dina leen demal bëccëg ca demoo loolu moom sëriñ bi nee mi ngi la koy seedeel ca wax juuju na nga ko koy yóbbul ba joxalal jotalal ko ko sëriñ Mouhamadul Muntaka mi nga xamante ni mooy xarifatu murid mi boo demee daal nee ko sëriñ Modou Maram nee na mboolem njabootu sëñ Mor Seye Ndiaye gi fa leen sëriñ ba bàyyi woon foofu lañ nekk lépp boo xamante ni noppi bañ noppee gis sëriñ bi ba léegi ci ginnaawam lañ nekk loolu nag yam na ak waa kër maam yi muy sëriñ Modou Xara imam mi ak sëñ maam Mbay ñoom ñëpp kenn mooy ko ci dara lu toll ni talfatul xay ni mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di sant di leen ñaanal cay ñaanit nga ñaanal leen sun borom musal leen ci saytaane ca dëgëral seen taxawaay mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala moom mi nu mayoon nu teew fi daaw mu mayaat nu nu teew fi ren waaye bi mu ñëwee fekk na fi doomi boppam di sëriñ Cheikh Bara Lahad di kenn woon ci sëriñ Murtada di nuyu itam sëriñ Modou Mbakke ak sëriñ Dame Mbakke ak sëñ Abdou Latif ak sëñ Chérif Dieng ak sëñ Mohamed Lamine Dieng di nuyu sëñ Modou Ndiaye xalifa sëñ Mor Fay Ndiaye ak sëriñ Fadilou mi nga xam ne yónnee na fi léegi may wax ne jataay bi mag ñi fi nekkoon di dund yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi bis ni ki tey bëgg nañu ndax sëriñ Mor Ndiaye bi muy génn àdduna ci jamonoy Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh Mouhamadul Fadil moo ne nañu ko denc fii ñëw nañ fi bi sëriñ Mor say wax ni sëriñ Mor Ndiaye lu ko gën a wéyal jabootu sëñ Touba fekk ko fi mu tëdd amul mu nekkoon sëriñ Maam lu mën a xew demal ba ca barabu sëñ Mor Sëñ nga ñaanal ko ndax loolooy mbégteem moo tax moom mi ko waxoon yàlla dogal mu génn àdduna dimanche si guddi bët set di altine Cheikh Seydou Mokhtar ne nañu ko denc ci wetu way juram muy ndigal la mu waxoon ne njabootu sëñ Touba fekk sëriñ bi fi mu tëdd lu mu ko gënal amul tey ñoom ñaar ñoo tëdd fii sëriñ maam moom ñëw di leen ñaanal loolu mag mu liggéeyal yàlla ba mu gërëm ko bu la yàlla mayee kenn ci njabootu sëriñ Touba di ñëw fii at mu jot tiim la def say ñaan defi ñaanam defi siyaareem loolu damaa xam damay wax ne ku amul ngërëm mënoo am lu mel noonu waaye nag lan moo sabab diggu sëriñ Mamor fii ci Daaru Njaay bi mu fi ñëwee itam ak sëñ Mor dégg naa ci benn wax boo xam ne dañu ne sëriñ Mor daf ne woon sëriñ si dégg ñi mu dékkoon daara ji na ci farlu wax bëgg naa ñu dem ba jamono joo xam ni xam-xam yi ma bëgg yépp xam-xam yépp ñu di ko fi jàng loolu xam nga ni ku amul gis-gisu kanam doo ko xam yàlla di dox di def la ko neex ba lumière bu mag bi di daara ji ñëw fi sëriñ Mourtada ñu jël taxawaay bu mat sëkk jëmale ko ci loolu am na nuñ koy jàngate Serigne tuuba moo tànnoon ay mag yu bari xam-xam ñu mokkal alxuraan ne leen ñëw leen ngeen liggéeyal ma ci daara ndax Ahmadu bëggul bu ëllëg yi ñu ne ahmadoo tas daara yi tël cheikh mouhamadul muntaka keroog bi ma koy yóbbu ñu ngi ànd ak fondation xaadimu rasul bu États-Unis ñu war a indi seen barkeelu ma ne ko sëriñ Mamor de moo ma joxoon lii ne naa la ko jox mu ma xool benn téere bi ci tër bi nekk zahiratu tafakkur fi tanzimaati diiniya mu yéemu ma joxaat ko beneen mu xool ko mu mel ni daf caa bind min waraqil na ma joxaat ko beneen mu xool ko mu gis ca lu ñuy tudde toxfatul mutaallim mu ne ma lii de kii de dalal na sama xel dolli na sama yaakaar dolli na sama fit te am naa dëgër ci lii mu bind jox ma ndax man xam-xam laa ñëw di ko jëmbat mu jox ma meññet moo xam ne ñëpp mën nañ koo jëriñoo ne ko dalal na sama xel tasul sama yaakaar te dolli na ma fii daara jooju mooy ji rek daara jooju mooy ji rek lii mooy wane ne mag ñi fi nekkoon tasuñu daara yi kenn teewuñu kenn xam yàlla teewuñu kenn xam yonent bi teewuñu kenn xam sëriñ bi kenn teewuñu kenn teg tànkam ci fi nga xam ne fi la ko mag ñi tegoon kon loolu mooy li sabab lii te ki ko fi di ki ko fi ñëw di ko fi dox si yàlla xam na ni liggéeyal yàlla ak liggéeyal islaam a ko ñor la maamam waxoon muy cheikhul xadim lawla alquraan wal xadiis wal xidmatu ma dumtu fi dunya laylatan waaxida bu dul woon alquraan ak xadiis ak liggéeyal rasulaay genn guddi ëpp na ma ci àdduna loolu la Sëriñ Tuubaa waxoon waaye moom it bu dul woon alquran du hadis du liggéeyal rasulullahi du jàngale njàngalem diine ngir ëllëg nit ñi bu ñu jàkkaarloog Cheikh al xam na ñañ fa bàyyi woon liggéey na damay wax ne kon soxlawu fi dara parce que kër gu rëy gu rafet intéressé wu ko dara lu ko intéressé lu dul def li mu am def ko ci xam-xam nit ñi jëriñoo ko moo ko ñor moo tax laa Mawlana Cheikh Mouhamad euh, Cheikh euh, Sidil Mokhtar bi fi nekkoon. sëñ Cheikh Bara Lahata ngi toog mu ne Maam lantinoor la du téye dëwlin wax bu gën a rëy boobu amul ci yoon wi wa ma ala rasul ilal balaax niñ koy li mu li yàlla wax lay wax waaye liñ ko jox dina ko delloo ci yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen masso yit di leen balu àq di ñaan rek ndax dañ nu fee wax sunu mbokk mu wàcc liggéey léegi muy sëñ Mamor ci lappe kenn ku nekk jàng fatiha ak lu tàmbalee ci ñetti lixlaas bi ci benn ba ci ñeent lu mu ci man rek ndax am na addis danañ ñett lixlaas boo duggee ci armeel wax ko fa nekkoon dañ lay euh, dolli ay yërmane kon lu ci am rek nañ ko ñaanal suñu mbokk moomu ñu xam ne àddina noonu rek la kenn du fi des moo tax loolu moom kuñ ko xas wax ne def na ko ñaanal ko rek mu xam ne dem na ca kër gu mujj goo xam ne kenn du fa jóg te ñëpp fay dem kon yàlla na ko yàlla yërëm kon ñu jàng ku nekk loo mën ci ñaan rek nga def ko bu loolu wee ñoo ngi nuyu ñëpp tàmbalee ko ci sëñ Modou ginnaaw bu mu nuyoo sunu mbokk yi sëñ ab sëñ baara sëñ seex baara ñu ko sëñ Murtala Amar waxe di sunu lépp sax ndax waajuram waajuram yépp sax waaye ni mu ko junjee léegi e, waajuram sëñ Abdourahman dafa nekkoon kenn ci sëñ Murtala ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu itam suñu mbokk yi fi jóge léegi ak mboolem ñu fi nekk di suñu bokk suñu rak suñu doom di nuyu talibi yépp di la nuyu suñ moo nga jot la ñu nuyu suñu fall ak njaboot woot suñu mom njaay yépp ginaa boo xam ne nuyu nañu tamit njabootu suñu moor sëy di ko ñaan di leen ñaanal yàlla mu dolli leen ay xéewal te taas ji tamit seen barke di nuyu bu baax oustaz Fall ak dong yi fi nekk di jàng ak mag ñi magi taalibe yi muy yu góor yi ak yu jigéen yi di sant yàlla bu baax ci ni ko sëñ Murtada waxee sànq ci lum nu may ñuy jub ñu ñu war fekkewaat bañ fi njëkkee ñëw fekk fi sëñ Mor Seye li ñu ci àddina rek mooy loolu waaye doon nañ jël ci moom lu gàtt gàtt ay loo xam ne xamuñu woon sax loolu am na nga xam ne fu ne rek sëñ Touba denc na waaye nag sëñ Touba tamit fu muy denc fu ne da koy wóor ne du laal kooku du ko sàggane te fam nekkit dana ñëw te ña ko bëgg a jariñoo ña nga xam ne ñëpp xam nañu ko lu ci waaye bëgg ci jariñ dana ko ci am loolu moo indi barab bii barab bi am ngeen seen yëfi bopp sëñ Mor Njaay sëñ Touba mbirum lu baax kenn du ko lijjanti da koy da koy liggéey rek yàlla moom moom lépp waaye teewul daf nuy sant nuy jëf te jëf yi du ko jëriñ dara sëñ Tuubaa moomu nga xam ne tamit moonu loon def suñu digganteeg yàlla moom it mu jël yonent bi sallallahu alayhi li nga xam ne nuy itam foofu la waaye foofu dafay sori léeg-léeg du lu yomb moom it sax yombul ndax lay tax nga mën caa jariñu lay tax moom itam mu sawar lu mu la bëgg bëgg yóotu yóotu yóotu boo dee ànd ko du ko du la mën a téye waaw ndax yootu it nag ki koy def xam nga ni moo yor coono boobu ndax mooy yóbbu loxoom moo koy def waaye ki muy xëcce bu fekkee waxtu wu mu ngay ngay àndu kooku itam day yo day jafe rek waaye du ko mën a jàpp loolu nag moo tax di ko tudd yomb na lool di ko tuddoo tamit yomb na lool kon di ko tuddoo mooy fexe ba di ko tudd mooy fexe ba mu ba ba mu bu lay yóotu nga bañ a xëccu tuddoo nag mooy nga ñoddee ko ba du la mën a jot yàlla na ci yàlla ñu ngi leen di nuyu sëñ Modou li ngeen ko waxee ne Mourtada Ndiaye moom la moom ngeen yabal ngir mu sabablu lii wante kon ndaw lu mat ndaw la te itamit bu ngeen ko yabaloon ba noppi toogit waaye da ngeen caa toog waxtu wu ne fu ñu leen gis rek fu ñu ko gis rek gis leen danañ leen koo gis sax danañ leen gis léeg-léeg ay magam ay kilifaam sax ñoo koy jóg di ko doxal mel na ku koy doxal yonent xam naa ne ñemewul yoon kilifa ay kilifa yi ñu yëpp ñemewuñu duñu jóg mukk ngir di ko doxal ab yonent kon day mission day mbir loo xam ne day loo xam ne moom bu ko attanut da koy jaarale fi mu ko war a jaar ndax jottalil nga daal defe ne da ngay da koy da ngay rek dangay ngay ne ko cas rek mu jóg fekk dañoo bëgg nga wan ki nga koy jottali na ko mi ngi nii kon wala nga wan ko waaye boo ko bëggee yan te fekk du sa yan wala attunoo ko day indi coono bu rëy rek kon xëy loolu moo tax ñun tamit ñu nangu lii nag sawar ci danañ ci gërëm it sëñ Murtada Amar ndax moom fii la Kajoor la xam na fi léegi laa koy wax ne ko taarix kenn bu ci conférence conférence li muy laaj mooy débat loolu gis ko def ci taarix waaye ni mu saware fii ak lim ciy daj daju ko sax ci gàddu yël kon xam na ne xam na kon la tax ndax dañu ne am seen ruq séddu am seen ndab téye ko bu leen neexee man ngeen ca lekk ba suuf te du ngeen xaaraat bi kenn du ngeen soxlaal kenn waaye téewul da ngeen ko ub ba mu jekk ngeen di ko ñoŋal di ko wattoo waaye lu ñëwul nag lu ngeen gis lu baax nag xëcc indi tegaat loolu ku xam lu baax rek koy def ndax toppee yombul yombul woon te def naa ne ba tey du yomb dee ci wàllu adduna sax boo ci gisul lu la jariñ bu la neexee nga wàññeeku kon àllaaxira bi ñëwagut nag nga xam ne lépp xayb la am lu yàlla wax la ba tàyyi al imaanu bil lu yomb loo gisul xamoo ca dara ñu ne la gëm ko nga bëgg koo gëm te amuloo lenn lu la ca wan dudul loo xam ne yaa koy génneel sa bopp ca loola kooku defe naa ne kon ñi jamonook sëñ Touba ak ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo xool ña jamonoog moom te di ca di ca di ca di ca roote la leen ci dugal lépp mooy yaakaar ak ak gëm loo xam ne ndax gëm lu ñëwagul yombul waaye li tax yombul mooy ki koy def bu xasee am benn dang dangi rek gëm nga dugg sotti kon nag lay kol ko day mel na loolu ray bu turu rek la maanaam lu ñëwul waaye moom pour moom ñëw na ndax gëm na ne xam na ne am na kon ñu gis ne ñi toppoon sëñ Touba mooy ay bokkam ak ay léppam lu neem lu neem topp na ay noon waaye ku ci nekk nag léeg-léeg nit indi bool yi léeg-léeg indi paan léeg-léeg indi ay lu ne ku ne rek fa nga nga bëgg a tànqee léeg sax nga indi ko indi kopp waaye léeg gis ku indi bool ñu ka indi kopp sax ëppale ko ndax boole ba buy génn muy senn wala muy daal mu ko waaye nag na ko yanu rek ñu defee na day wuti ndax kii kër xër na ma ngay rooti te bu ko yanoo ñëpp def na yanu na waaye buy génn muy tuur wala muy senn teeru as koppam nag ñu naan kii di du dara kii di dem yor du dara waaye dana ko garder ba mu ci bëgg mu am loolu moo tax mbirum sëñ Touba léeg-léeg sax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ci li ñu koy mën a waxee ci wax maanaam ëppal ci la nit di wax ndax saa boo yemee ci sëñ Touba ku xamut léeg-léeg sax ñu ne la yow dangaa ngaa bëgg fa bokkaale ndax sëñ Touba ji bari na sëñ guddi sëñ Touba bëccëg sëñ tubaa kaw sëñ tubaa suuf looy wax yaa nga ci sëñ tubaa ba ki xamul sax day defe na ba defee ne da ngaa far ne dootoo sax egg ca yàlla mais yàlla yombul woon bu yomboon bu yebal ay yonent te ku gëm ku tudd sëñ tubaa boo ko bëggee xàjjale ak yàlla rek kon gëmatoo yàlla ndax sëñ tubaa kenn du ko tudd te yàlla taxu li mu am ci yàlla la ko amee nun ñi ko toppit ci yàlla lañ ko topp ba tax na koo ko ci koo ko won te boole woo sa bopp dana ci jariñu waaye nag loolu mooy jafe waaw wan ko ba noppi ne maa ngi nii kat may tam loolu nag moo ci bare waaye koo ko won moom kese boo watuwul sax boo tëyiwul sax mu nangu ko ci yow waaye nag loolu it nirul na lu lu yomb bari na lu koy wax ak lu koy doxee te fekk demewul noonu da nga ci gis sa bopp rek wala nga daal di ko yemale lépp nag li ko taxoon a jóg mooy li li nu yàlla baaxee yonent yi indi ko sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi mujj indi leeral ko jotewun ca moom it nu mu xool façon bi mu ko mënee bi mu ca bi mu ci mën a ci noonu mu jëlee ko moom itam ci nam ko fa nam ko xam nam ko gisee loolu moo moonu boole ak moom ku xam yar ku xam jàngale ku xam wane yàlla xam ne du ñëpp a ko mën waaw ndax yàlla yónent yi ay ay nit yi nekk ci àdduna ba àdduna sosoo léegi ay milliards nit la kenn xamu ko sax lu ne danañ ko wax wante li ci indi njëkk ci ay yënante ay téeméeri junne la rek ak ñaar fukk junne kon doyul te ñi ci ëpp sax te kenn xamul kañ la bi yonent bi sallallahu moo ci mujj te boobaa léegi ëpp na junne at ak la kon ñooñu ku compté woon ci ñoom rek pour lañ indi am na ci ñoo xam ne sax kenn xamu lañ nekk ci diggante yañ ñëw nekk dañ ko yónni yónni te ñi nga xam ne ñoom lañ ci yónni ak ñi nga xam ne ay awliya lañu kese ñi ñu ci yónni kese kese sax matul sax loolu téeméer ak nangam la ñetti téeméer ak nangam la kon gën naa tuur si te ñi ci des dañ leen a wax ay yonente ay ay nit may jox nañ leen rek euh, fal nañ leen mais joxu leen ordre de mën a demee def dara kon ñooñu bëri woon ñetti téeméer ak nangam xaw loolu kon loolu mënul mënul mënul régler dara ci àdduna waxuma laa problème gëm wante yàlla ginnaaw moom li muy xéewale mi ngi fi moom fokk mu dina ko saytul kon fokk mu am ñoo xam ne ñoo koy jàllale ci seeni façon ndax bu fekkonte ne li nga xam ne waaw su naan dafa sonn ci laaj bi di sàrfa bi bu ne xeer wu ne joolaa yaa séeréer saak alpulaar yaa saraxul yaa ku ci yàlla da cay yónni ay yonent mais lan mooy yonent mooy ki nga xam ne dafay defal nit lu ko mën a àggale ci yàlla wala mu xamal ko bu fekkente nag ordre mission bi ñu lay bindal nga yor ko am na limite waaye ku yore mission bi moom mënul am limite parce que bu ko amee rek yëf yi yëf yi yàqu ndax kon du amati ku jàll kon nun mu jaare leen ko ci sëñ Touba yeneen kër yi tamit noonu moo tax waxtu wu ne nit dañuy jaawale sëñ jël jëmmi sëñ Tuubaa li ñuy wax li ñuy ni ko mën a waxe idéologie maanaam mbir la moo xam ne ñépp ko mën a man caa jël moo tax damay wax ne ñu naan waa Touba ak waa ak sëñ Touba sax dañuy léeg-léeg ñu koy jaawale boo xasee ne waa Touba xanaa nga ne ña dëkk Touba waaye boo yemee ci loolu rek ña ca Japon nga ca ña ca Chine nga ca ña ca Amérique nga ca képp ku sëñ Touba ñor rek waa Touba la ak foo ko doonee moo tax léeg-léeg ay erreur day wax am boo nee Touba rek dugg nga problème parce que boobu baax képp ku ko yaakaar ak foo ko yaakaare rek yaa nga ca biir ak képp ku ko jaaree ca moom boo nee nag waa Touba nag te boolee ca ña ca biir ak ñeneen ñi moom comme ñëpp ko ca biir moo tax waa Touba nag lu nekk ngi ci biir waaw ñi ca biir sax am na leneen lu ne ca biir waaye sëñ tubaabu moom dara dox ndax moom la bu ko defee ñu tollu jamono boo xam ne bu doy waar la ndax lu nit ràpp rek dugal ko ci ba ñu ko sax foo ko woo bu dul dëgg sax mën na la caa fekk bu fekkee la ko ca woola du du du lu naqare yàlla la yàlla nag moom ñemewu ko ndax da koo xam képp koo xam ne gis nga ko muy foq wala muy def lu dul noona dugal ci sëñ Tuubaa xam ne tooñ na ko ndax sëñ Tuubaa yoon nekkut te mënu ca dugg waaye boo ko gëmul sax boo ko laajee mu dox sa digganteel yàlla wax ko yàlla mu defal la parce que yàlla du jeexal te moom itam soxaru loolu moo tax jafe na lool ko pour jàngat ko terax taaraxar tël tël rajax rajax rawatina nag boo xamee ne dem na ba daanaka lu ci bari matériel la rek ak pouvoir sëñ Sidi Muxtaar mu ngay wax sëñ bii fi nekk yàlla na ko yàlla may wér may ko kàttan yàggal ko fi comme noonu nga ko waxee rek ñun dañoo mësta dugg ci ngistal ak ak ak wax mës ñu nekk dak ci àdduna te duñ ko nekk moom dafa am dégg naa am na ku mos a ñëw sax nekkum waaye wax yu bari si baaraa ngi fi xam nga ni man xam naa lu bare te moom it danañ ko ci sant parce que ni ma ko gisee rek laa ko gisee ba tey te du ma mësuma nekk nit kuy tañax tañax sama waajur sax ba mu fi nekkee léeg-léeg ma xëy bi sax dem du ma gisati ba mu yàgg di ma naan waaw moom sax dafa yëg boppam ma ne ko mais bu ma yëgee sama bopp xanaa ci keneen laa koy woon waaye du yow ndax koo xam ne bu ñu nee maam Mortane wu ñu sëñ Mortane duñ ma xam waaye nag bu ma gisee lu ma xamul nag su ma neexee xam ne boo ma àllagee tamit la lan la lay jëriñ waaye day fekk booba lay tax ma ma ma jékki-jékki dem du toog ay fan du ko gis li daan am ci kër yi rek daan am doo yëg doo tin nga xam ne yow amoo benn jafe. bu ko defee nag bu dee nitu yàlla da lay seetlu ba xam yow foo toll bu dee nag ku mel na man nga xam nit mel la boo ma seetloo rek daal lay dama lu tax parce que kii sax yàlla la waaye da dem ba ca kanam nga soog a soog ci lool nag nga xam da lay seet waaye xam na boo ko ne woon ma nangam wax ko lu rëy ci moom it te du du loo yande dana la daal di nirul ko la meree fi si waaye bu toogee tuuti dana ci xam dara waaye foog mu woo la woon wan la tiital la moo tax ñu naqaree xam lañu benn nit dégg naa dafa ñëw ci sëñ sëñ Sidi Moxtaar ne ko Mamor bi waxi waxam mu seetlu ne bàyyil ma seet ma itam xam nga yooyu nit yi de su ko détaillé waaye li ma bëgg a wax mooy niñ daan nekk ak ñooñu ba léegi si ba ci sëñ Mourtala ak ku ñu ma kilifa bu mu mën di doon nañ daan nekk ak ñoom ñun ñoo ko xam kenn mësuñoo influence suñ masaan bëgg a dem ci kël kilifa yi sax duñ nangoo woo nit ndax ragal rek ah maa tax de maa dox sama diggante am fa am ku mas a ñëw ci jamono bi sëñ Mourtala di dem toog a dem ne ma waaw Euh, sëñ bi sëñ Saaliwu dangaa war a am ku la fa nekkal ma ne ko ci lan mu waaw noonu lañ ma ne ko man bu ma fa nekkulul kenn kenn du ma fa nekkal maa ko war a nekkal pour pour lan man sàccu ma te xanaa nitu yàlla la bu ma nekk bu ñu ko demoon nangam te mu ñëw na koo xam mosuma nangu intermédiaire sama diggante doomu nit nit ñooñu xalaatuma ko sax pour lan loolu lépp li ma bëgg wax mooy fi jamono toll intermédiaire kenn du ko def yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne wax naa ko ba tey ni addis la boo xam ne xale yi tuuti yi sax jàll kulukum raay addis bu gudd la waaye loolu nañ ci manteel wakul raay solo ànd ay yëti yonent bi ne responsabilité kenn du ko joxe ku ko joxe rek ko boppam lay dox te kii laa koy wax xam naa ci dara kenn du ko def koo ne maag yow yow dema demala sa kër gii de boo fi newoon seen son seen musulaay mi kër gi mi ngi noonu soxna si wala mu wax moo dumee day kër ga parce que am na loo xam ne moom mënu ko lu mu ko bëgg bëgg bëgg du ko mën boo ko defee nag koo xam ne sax boppam laa sax dalay faat jalax da yàq te jaru ko parce que responsabilité la moo tax toujours dañu dérangé te pourtant yàlla seere na ne day amuñu problème amul dara lu muy lijjantal suñu bopp wala ñu ko di wax suñu bopp xalaat bu sax kon buñ tolloo ci jamono yii nu ñu gën a bàyyi xel dimbali mas naa ko wax defe naa ca marché xaw ma nañ koy dimbale am ku ñëw nekkoon nee na kat waa këram dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy safaane wax ja rek nga xam ne dama ni yàlla def na moom dafa daay woo nit ne ko seetlu ma loolu mu seet mu leen xamoon naa leen loolu yëpp damay wax rek lu bari nga xam ne doo xam lu xew ci àddina bi nit ñoo xam ne suñu sañoon seeni bokk waxuma sax lañ seq waaye seeni bokk sax suñu sañoon ñoo leen di tëyal lu yàq ak lu nar a def wax gat teg ci seen bakkan ba mënuñu ci dara waaye kenn ku ne defe na sa mbokk la tooñ gor du ko def jullit it du ko def ku baax du ko def ba tax na taalibe yi di leen bàyyi xel seen li leen dugal ci sëñ Touba kat ah d'accord sëñ Mor Ndiaye loolu ci dugal moo am liggéeyal sëñ Touba mais lam liggéey ma ko denc jox na leen ci pour ngeen jariñu ci kenn ko ne nag la nga ca jariñoo yaa koy lijjantal sa bopp waaye bu la bu la taajalee ndabet nag du la tibbal sexal la war na la moom kon kenn ku ne li la bàyyi ci sëñ Touba bul même boo ci juddoo tamit nag la lekk ci bàyyi moom yaa ko yaa ko yaa sa bopp. waaye moom kooku mosul dem. nii laa fekkoon sama baay rek ci laa nekk da ngay jëlal sa bopp lépp la tax sa baay nekkoon ci yow tamit da nga koy gëstu ba xam ko téyal ko sa bopp moo tax ñun ñi ñëpp kenn ku ci ne bu fekkee am ngay say waajur ak lépp murid tamit lay tax nga ko dëgg-dëgg yaa ko xamal sa bopp yaa gis sëñ Tuubaa gis lala la ca la ca dugal nga gis ne lii kat dëgg loolu lu am solo la kon loolu moo tax ñu gën a nañ gën a góorgóorlu te bàyyi wax jeeg lu ne ñu dugg ci nañ dimbale ki fi nekkal sëñ Touba ci wàll diine ci wàllu njaboot ci wàllu defar jikko yi jël matériel teg ko fële matériel du dara jumtuwaay rek la wante du jëmukaay te ñooñu responsabilité bi leen yàlla jox du pouvoir xam nañ ko sax ñoom waaye nañuy def dogu rek ci soppil leen ko pouvoir dox dogu rek boo génnee ci bunt bi bu dee ab damaa yanu nga génn ne ah moom day dafa tëdd doo wax sax ne ma nga yanu yan bu dis boo xam ne ma nga taxaw xaw mu lu mu koy lu mu koy teg booy génn ci bunt bi da ngay taxaw ci bunt bi ko ñëw nga ne ko ah, mu nga tëdd de te fekk moom ma nga yanu yan bu diis xam nga kooku kon ku tëdd mooy kuy noppaloo loolu nag yàlla na ci yàlla musal bu bàyyi nañu gën a sëñ Tuubaa dafa bëgg ñu muy ñu muy ñu muy am baal ma moo bi xëy na xaw naa gis ñu muy damoo kon ëllëg ëllëg bu buy wone yow yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim ko kon am na ku ne am na ña topp ci yow ay yonent yaa ñekk des ak ña nga xam ne ñoo taxaw taxawaayu yonent ak lépp ku ne ña nga xam ne yàllaa la boole ñoom ëllëg day bëgg buñ la woo rappelé la ak say gaay nga dikk nga am nga am ca ndam waaye di di di am ñoo xam ne doo leen wone mukk ci àdduna yàlla noonu ci yàlla musal boo xamul nooy defit yalla nga ko nan rek xawma ci aw ci pexe yaay ko defé mu la wala mo xam di kon ñu lay gërëm gërëm bu baax di gërëm yi yi ngeen jàng bu baax dem nañ ci école bi gis école nga muy barab wax naa ne minn cent 1974 ba ko sëñ bu tàmbalee ñu di ko jàng at yu njëkk yee ba ba muy dem ci 80 metti na lool lu ne am na ci te booba ñu bare ngi bare na luñ ci xam de wax nga léegi ne sëñ Mor bi ba ñu ko waxee ne ko saa buñ ñu fa masaa ñëw ne dañ fi tabax école arabe mu gàntal waaye bi ñu ko waxee jàngukaayu sëñ Mourtala Diop dafa nangu mu jóg fa jóg waaw loolu la amoon na de amoon nañ ñoo xam ne tamit xëy na lañu la nga xam ne dañ ko daan jaawale la rek mooy jàngub arab ak jàngub diine damay wax ne ñun jànguñu arab arab ko xeet la rek dëgg la alxuraan ca la wàcc yéen sallallahu alayhi ak arab la woon waaye li li tax mbir mi dëgg-dëgg mooy la ca biir la alxuraan di def ak la muy wax ak lañ koy jariñoo kon loolu moo taxoon jamono moo taxoon booba mu metti loolu kon xale yi wax nga ko léegi boo ma san jàng dañuy def ne rek da ngay jàng waaraate ji wala nga dem jàng junni ji jo ñu tudd loola doom nangam loolu lépp ñi ko daan xaajale di xaajale diine xam-xam rek la nga xam ne loolu kenn waru ko def diine mooy xam-xam xam-xam mooy diine bi yàlla defee jàngukaay boobu di di dem ba léegi ñu amoon ak jamono yoo xam ne certificat rek la yam ñu di ci sonn dem ba mujj ñu am euh, BFM ñu daan ko wax brevet jinaa bi ñu dem am baccalauréat mujj ñu jaaxal ñuy bàyyi sunu ay doom ñuy génn loolu lépp ñu ne ci digg sam di wax lu ñu di ko def ba tey jii ngeen xam ko ni ngeen ko xamee ci Azhar fi mu toll ci àdduna bi yaatu lool wax nañ wax naa leen ne daaw boobu bu yàggul bi ñuy tëj def naa juróom ñett fukki junni la woon yàlla def ñu kari université boobaa léegi mën na fukki at ñu bari dañu defe sax université lu bees la 2010 la woon bañ tegee xeer wi tuuti lañ ca teg tàmbali njàng ndax jàng université mooy njàng mu mag mooy boo jàngee ba am baccalauréat la nga cay teg mais boobu mënu woon nekk université ndax booba état Sénégal nangoogul woon baccalauréat bi officiel ñu débrouillé fexe ba jël beneen système boo xam ne diplôme bañ cay am ginnaaw bakk la ginnaaw bakk lay doon te diplôme ba état bi dana ko nangu foofu lañu jaar ba am université université Cheikh Ahmadou Bamba ba mu tàmbalee léegi ëpp na sax juróom-ñett am na sax ñu ci génn fi mu ne am na wax wax nañ ko ba tey boo demee aéroport ku jaar aéroport lay jël bagage yi détourné suñu étudiants yi njëkk a génn ñoo ko defar ak allemand yi ñu ngi yóbbu leen ñu ngi leen yóbbu ay dëkk ci Afrique ñuy defar ñu ci génn agriculture mais damay wax na ñun publicité. informé moom lañ moom lañ gën a fonk ci loolu mi ngi nii daal lañ gën a bëgg noo ngi nii loolu lañuy doxee moo tax boo demee ndaam faculté ba fa nekk ak ña jàng nga dem Bambey ñuy jën nga dem Ndar lañuy ñuy nga xam ne état Sénégal jox nañu lu mat fukki licence ak ñett yoo xam ne ku ko ku fi nekk boo jàngee na ko ko am ba bërki dem yónnee nañ junniy étudiant kon loolu du ab projet ñun dañoo bëgg ñu nit ñi xam bañ a dugg ci ay ay ay diaboliser ak ay ay yëf yëf yi Touba ak fu nekk lu ne mérité na amul problème jàng nag kenn du ko tricher waaw wax a wax ba am xam-xam ku jàngoo kooku mënul nekk nga neex xel nag wala ñu di la wax waaye buñ la dee wax wala nga neex xel rek ah, bu xam-xam bu wax bu xam-xam jotee da nga xam ne xam-xam di su ko tricher loolu moo tax ñuy bëgg xale yi ngeen jàng bu baax nañu xool moo du seen seex loo ngi fi ak ñoom ñu euh, ak Saas Guèye nañu fexe ba comme xale yi fii amaguñu defe naa certificat ngeen wax au sixième nañu war dem nañu fexe ba xale yi tuuti yi fii nu école bi kat ak nii mu mel nii kenn waru fee génn te amuloo baccalauréat kon Cheikh nañ xool ak Mahamadan ñoom ak direction ba fële ndaam ñu teel a jël matukaay ba nga xam ne xale bi bu amee certificat mën a jàll ndax xale bu tuuti bu toll foofu kenn du ko génn mu génn ay waajuram ndax yar bi daf ci am solo ñun dañoo bëgg yéen beneen beneen génération boo xam ne du ko bu ñu falax falaxee ñii nga fi gis ñëpp borom xam-xam lañ mais doo ci gis sax kenn ku yëg ne ku la wax ne la ku ci nekk ay diplôme yu kawe lañu ñu am mais doo ko sax xam yëg ci ñoom parce que xam-xam kenn du ko tiitaroo koo gis mu di ca teel teel lekk rajax rajax di ca won xamal ne xamu ci lu bare ndax waxtu wu ne da ngay bëgg a dolleeku ñii ñu àndal ñépp kenn ku ci nekk say lijaa sa nga sa xam-xam mais doo ko sax wone ah xanaa di dem ci mbedd yi wala dem ci waaw fa loolu duñ ko def di tànt pour wax rek ne xam naa nangam aaye boo mosoon a dégg nga indi ko wala addis loolu du xam-xam loolu nettali la xam-xam da ngay jàngat bu ko defee xale yi kon jàngat leen waaw di leen jàngat xale ngeen jamono bi jaxasoo na mais jaxasoo bi mas naka jekk nii la masoon a mel mos son bi wax bu ne rek fu jamono mas a tool rek am na lu koy gàllankoor lu taxaw kon jéem leen a góor góorlu jéem a fexe ba jàng bu baax kon nu ngeen sëñ yoon nu ngeen fexe ba euh, defe naa ne bu dee ay classe rek ndax bu ngeen amee certificat mën nañoo fexe ba dolli ci benn classe pour ñu mu nekk sixième dem cinquième ba quatrième ba six ba ba troisième loolu noonu ngeen koy jàppe rek bu ko defee xale yi bañ a génn ñu xool nag léegi mu des problème jàngalekat yi nag waaw ndax jàngalekat it fokk ñu di koo gën a renforcer ci seen capacité waaye defe naa ne sax danañ xalaat ci université bi ñi am baccalauréat te bëgg jàngale ñu di leen former pour jàngale jàngale ndax tamit soxla nañ ko fi mu ne waaw soxla nañ ay jàngalekat ndaxte euh, jàngale tamit du ku jàng sax du jàngale ku jàng sax man ko waxuma laa nag ku jàngale loolu kon dañoo bëgg kon bu soobee yàlla danañ ci waxtaan ñu xool diine buñ ñu xasee am seen BFM am na nu ñu leen war a orienté ba bu amee bac bi ñu bëgg fañ bëgg dem ñu bëgg ci fekkee dañoo bëgg nekk médecin fekkee dañoo bëgg nekk ingénieur wala dañoo bëgg nekk leneen bu boobaa ñu nekk ci loolu nag dañ ci xalaat ci bu xas bi xale xale bi xasee am BFM loolu lépp dañ ko war di jàngat léegi waaye doo toog ba mu ne kët na jon nga di ci nga di ci nga di ci jóg waaw loolu loolu loolu moom incha allah kon daal ñi ngi gërëm ñëpp di gërëm xale yu góor yi fi nekk te weesu xëy na jànguñu wala waaye nañu yaru topp ay ndigal seen ndigali waajur soxna yi tamit noonu ñu ngi leen di gërëm bu baax muy ñu góor ñi ñu jigéen ñi xale yu jigéen ñi ngeen góorgóorlu ñi ciy jàng ñi ci jàngutin ngeen xam seen bopp waaw jamono ji jaxasoo na boo dee jigéen rek sonn nga waaye boo xamee sa bopp nag waaw nit nag bu gëmul yow rek doo yow waaye boo xamee sa bopp nag da ngay daal di jéem a xam keneen ndax man caa jële dara loolu yéen xam leen seen bopp ngeen ko defee dangeen mën a dem waaw kon ñoo ngi gërëm ñépp di ñaan yàlla def jàmm te man maa waxoon nag buñ ñëwee ñu kii fii ndax buñ julee tàkkusaan rek mën a daal di ko ndax ñun ñëw gi fii kat dañ ciy jariñu waaw dañ ciy jariñ ñun tam suñ fi amee benn waxtu rek euh, defe naa ne euh, buñ fi doon am weerit du tax mu doy kon buñ fi amee benn waxtu tamit te am ci lañ soxla woon wala buñ ko fi amut am ca lañ ci soxla woon ndax weerit du tax nga am fi lañ soxla woon lépp kon nag loolu tamit moo tax rek ñu bëgg bu yàlla defee ñu julli tàkkusaan rek ñu yeewu ñëpp kon ñu ngi gërëm ñëpp coono beeg jëpp gis nañ ko mottalaa tamit loolu la bu nu wóoroon ne topp lu ay magam wala mu ngi ci leneen it kon du ñëw kon buñ fi ñëwee dañuy ñëw rek def xëy na li ñu def waaye du nu du nu dem waaye gis nañ ne dafa topp ci te loolu yombut yombatul day ku ne kilifa la bopp ku ne sa kilifa bopp nag xaw ma kan ngay commandé. kilifa buñ ko dee wax mooy ku ay dara topp nga di leen dimbale mais yow sa bopp rek mo yaay kilifa googu ne kooku kooku sànq sa bopp la parce que doo xam koo jëm waaw loolu nag moo tax ñu ngi koy gërëm bu baax di leen ko seedeel yéen ñi ay waajuram yéen ñi ay kilifaam yéen ñi ay magam sax ay kilifa ay waajuram ngeen place waajur ngeen taxawé fa kon ñu gërëm bu baax sunu bokk yi fi nekk yépp ñu ngi leen di gërëm sant bu baax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بينا فيب واي نكرة متعلا الحمد لله نعو نعم أمين أمين اللهم أمين أمين يا رب الحمد لله جرين جف ñi ko doon